waxtaan ak yéen ci li nga xam ne moom mooy ay jéego yu état du Sénégal def pour yombal li ñu naan approvisionnement de notre marché en mouton de tabaski. lu mu bëgg a wax fa mu loolu mooy il y a de cela sept ans ou six ans même mën naa ni suñu réew mu ngi doon importer luy tolloog cinq cent cinquante mille moutons loolu mooy que ne amoon nañu déficit bu criard ci suñu biir réew. pour pallier à cela, le président de la République, son Excellence Macky Sall, à travers le ministère euh, de l'élevage et des productions animales mu initié woon fi li ñu naan programme national d'autosuffisance en mouton programme boobu ñu lëkkaloo ci ak les maires du Sénégal ñu lancé ko depuis 2017 objectif bi moo nekkoon fexe ba li ñuy jéggaani ci wàllu xar mu wàññeeku wala mu jeex sant yàlla 2017 ak léegi mën naa ne li ñu doon importé jóge na ci cinq cent cinquante mille têtes de mouton tey ji tey ñu ngi ci tolloog trois cent mille moton loolu aussi ngeen xam ne c'est juste des estimations mën nañ ko def de façon exagérée comme aussi mën nañ ko def li am solo ba am solo mooy ñu def une estimation boo xam ne au finish day porter préjudice au Sénégalais lambda ci loolu nag sant yàlla surtout par rapport ak ren ren li ñu war a importer li ñu war a bëgg ci wàllu tabaski mu ngi toll ci huit cent dix mille moutons cent dix mille mooy ñett juróom-ñetti téeméer ak fukki ni xar la ñu bëgg pour réewu Sénégal bi yépp ci loolu mën naa ne li am Sénégal soo ko ci dindee toll na ci trois cent mille moutons yoo xam dañ ko war a jéggaani jéggaani à Mauritanie jéggaani ko au Mali Burkina ak feneen ak feneen ci loolu trois cent mille yooyu noonu mën naa ne ci bëgg-bëggu réew mu Sénégal par rapport ak huit cent dix mille moutons yooyu soo jëlee région de Dakar kese bëgg bëgg ma la soxla mu ngi toll ci deux cent soixante mille têtes de mouton ci biir région de Dakar sant yàlla nag par rapport ak li nga xam ne commencé nañ ko def li ñu commencé def mooy benn les dispositions yi nga xam ne réew mi di ko jël gouvernement bi jël ko bi ci jiitu mooy dindi lépp luy tax droit et taxe ci xar boo xam ne ci tabaski la jëm parce que bu njëkk dañu naan lii tax xar yi di cher soo ñëwee ci frontière bi état daf koy taxé soo ñëwee ci yoon yi police ak gendarmerie dañ lay taxé parce que dañ lay laaj yenn kii di la sonal soo ñëwee aussi au niveau des communes mooy point de vente yi aussi les maires ñoom tamit dañ lay taxé président de la république par l'entremise du premier ministre mu ne loolu noonu nan ko dakkal mooy que ne amul tax benn taxe boo xam ne dañ ko teg ci wàllu xar loolu c'est pour yombalal suñu opérateur sénégalais yi nga xam ne ci biir réew mi la ñu nekk mais au-delà de ça aussi dem ñi nga xam ne dañu jóge à l'étranger suñu ñëw ñoom aussi ñu mën a am gàllankoor ci fànn woowu au-delà euh, de l'exonération des droits et taxes gouvernement bi aussi nee na nañu yombal dem beeg dikk bi parce que tracasserie yi dafa bare woon de par le passé mooy que ñi nga xam ne dañu indi seeni jur seeni ay camion parfois dañu doon am ay jafe-jafe en matière de contrôle soit police wala gendarmerie wala douane foofu aussi le premier ministre du baax arrêté bi nga xam ne génne na ko 18 avril passé mu ne lépp loo xam ne contrôle la nañ ko wàññi waxul ne nañ ko dindi parce que kenn ku ne ci yéen xam na ñi indi xar am na ñeneen aussi peut-être ñu ngi indi leneen kon dañu ne nañ ko wàññi sans pour autant qu'il y ait mais au-delà de ça aussi wax na ne nañu installé li nga xam ne moom mooy point de vente point de vente yi su ngeen ko déggee mooy fii nii Ndakaaru li fi nekk ci ay foraay motul pour que population Dakar ak yëpp mën ci approvisionné wu moo tax chaque année dañuy jël ay point de vente yu bari aménager ko aménagement bi nag bokk na ci def fa courant def fa ndox def fa des toilettes mobiles mais aussi et surtout accompagner leen en aliment de bétail parce que ñenn ñi dañu lay wax ne ñun suñu indee suñu jur à Dakar duñ ci mën a am dara wala ñu obligé jaay ko mu cher parce que dépense yi ñu def dafa bari et dans ce cas d'espèce état di Sénégal jël luy tolloog ñaari junni ak ñaar téeméeri tonnu aliment de bétail subventionné ko presque à cinquante pour cent loolu noonu c'est pour que mu yombalal ki nga xam ne mooy jaay juram su ñëwee au niveau de Dakar mu bañ am yenn contrainte et dans ce cas d'espèce aussi loolu dafa war a am njeexantal ci ki nga xam ne moom mooy le Sénégalais lambda kon ñun suñu mission en tant que état ñaari niveau la soit dañuy réguler wala ñu facilité dans ce cas d'espèce nag la président demande à ce que ñu gën a faciliter que ñuy wax régulation faciliter nag mooy pour permettre opérateurs sénégalais comme étrangers à ce que mën a jaay dans d'excellentes conditions mais le sénégalais lambda si ak lu boursam mën di toll c'est-à-dire poosam nu mu mën di toll mën a am xar ci loolu nag premier ministre tout récemment effectué na visite bu am solo au niveau des zones d'attente par exemple Sandiara Touba Toul Sewekhaay entre autres ni ko premier ministre effectué tout récemment man ak mon collègue en charge du commerce àndoon ci tournée boobu man également effectué naa tournée bu mel noonu en Mauritanie waxtaan ak autorité mauritanienne yi waxtaan ak également opérateur mauritanien pour que ñoom ñëpp ñu mën a xam ne am nay dispositions yu am solo yu état du Sénégal jël pour yombalal leen dem bi ak dikk bi à ce niveau aussi ñuy santaat yàlla bu baax di rafetlu relation yu rafet yi nga xam ne am na suñu diggante ak suñu mbokk mauritanien yi loolu tax aussi may invité kenn ku ne ci ñun waaw fekk xam ne opération tabaski bi su baaxee moom la su amee nu mel moom la su dee kenn ku ne ci ñun jël na responsabilité que dana def kémt lay kattanam am naa njort que ne opération tabaski bi dana baax parce que du état kesi kesi kesi moom mooy gérer opération tabaski état acteur la ci waaye dafa am yeneen moyens yoo xam ne kenn ku ne ci ñun ci la bokk. su loolu jàllee aussi ñu rafetlu surtout yi nga xam ne c'est des missions yoo xam ministère de l'élevage mu ngi koy def ak ay services am particulièrement le secrétaire général et ses équipes def nañu la frontière au niveau de Kidira def nañu la frontière au niveau de Médina Ndiathbé entre autres rien que pour s'inquiéter de la situation de l'effectivité surtout de des mesures yi nga xam ne jël nañ ko au niveau des frontières une façon vraiment de dire que wax dëgg fi yàlla fi ñu toll am na njort ak yaakaar que tabaski dinañ ko mën a def dans des dans d'excellentes conditions waaye il faut aussi le dire actuellement ci prévision yi nga xam ne am nañ ko mu tolloog huit cent dix mille moutons soo doon xayma tey tey ñu ci cinq cent cinquante neuf mille moutons le dix huit passé donc am na gap bu fi nekk mais soo ko comparé par rapport à l'année dernière on était à plus de aux alentours de 540 000 moutons donc bu doon dañ koy xayma en termes d'évolution il y a une évolution positive de plus de 20 moutons yoo xam ne mu ngi disponible tey à J moins 11 on espère que dernière semaine bi nga xam ne moo des xam na njot ak yaqin que ni xar yi dinañ gën a bari parce que on nous donne des informations comme quoi que chaque jour au niveau de Dakar il y a plus de 4000 moutons qui entrent sur ce plan ñu ñaan yàlla yàlla mën ñu may sutura ak kii pour que loolu mën a mën a continuer merci monsieur le ministre